asalaamaaleykum mbokk internet IYAT TV ñoo ngi leen di nuyu ñu ñëw tey fas yéene waxtaan ci actualité nationale bi actualité nationale bi nag bokk na lu fës lool ci actualité bi ay nit ñu bari di ko wax ndax mën na nekk wala mënul nekk danañ ci joxe suñu xalaat mooy diggante Macky Sall direct entre Ousmane Sonko et Macky leneen li bokk na ci information bi nga xamante ni démb la ko ñu bëri ci presse national bi doog a wax waaye xew na depuis lundi mooy trois cent personnes yoo xamante ni jugee nañ ci ay fële ca départ ci Kafountine bëggoon a jëm fële ca Espagne biñ demee bay jub foofu la ci îles Canaries ñu ne dañ fa am ay jafe-jafe loolu bëgg nañ ci wax ak leneen li nga xamante ni bëgg nañ ci wax tamit mooy li nga xamante ni moom la majorité présidentielle bi wala boo coalition Benno Bokk Yaakaar nekkee jamono ji ñu toll est-ce que Macky Sall li mu bëgg mën na nekk wala mënul nekk ci ñi mu bëgg a ki mu wala boog ki mu bëgg a choisir pour mu nekk candidat am ci vingt cinq février est-ce que bu ko choisir majorité présidentielle bi du éclater wala yooyu danañ ci joxe suñu xalaat li ñuy njëkk a wax mooy li nga xamante ni am na mooy sénégalais yi nga xamante ni déparé nañ ci Kafountine mën nañ ni sax duñu ay sénégalais donc ndax yu mel noonu buy am ñi nga xamante ni dañuy jóge ci yeneen dëkk ci sous-région bi dañu ci faral di bokk waaye mën nañ jàpp ni majorité bi ay sénégalais lañu déparé nañ fi le 23 juin jàpp vingt 24 ba le 25 foofu de ca Kafountine jëm fële bëggoon dugg Espagne li nga xamante ni am na mooy Sénégal fi désespoir bi toll moo tax nit ñi lu ñu gis lu ne dañuy jàpp ni fii bu ñu fa demee fépp fu ñu jàppee ne amee fépp fu jàpp ne am nañ fa tuuti espoir fu ne danañ def lu ne ba jéem a àgg foofu daanaka bu ñuy dem ñaari extrémité la teg mooy réussir wala nga faatu rek mooy barça wala barsaax ñaar yooyu la ñuy teg loolu nag état bu Sénégal am na ci responsabilité bu mag bu ma nee état bu Sénégal du ñi nga xamante ni ñoo koy incarné tey mais ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy incarné ba ñu ne Sénégal jot na euh, souveraineté internationale mooy li ñuy tuddee indépendance depuis 1960 ba léegi. ñi nga xamante ni ñoom ñoo mas a jiite Sénégal dañu lajj ci jox ndaw ñi xëy dañu lajj ngir téye fii ndaw ñi jamono bi nga xamante ni ay réew ñi ngi liggéey ngir développer réew yooyu de ñun ñi ngi xalaat leneen nu ñu ci nekkee waaye xalaatuñu développement jamono ji nga xamante ni Chine mi ngi doon liggéey ci nu mu développer économie jamono jooju foo lañu xalaatoon jamono ji ñu siin di ñëw fii ñun ñu koy jox suñu géej gi mu koy saax-saaxee lan la ñu fayee mooy tabaxal ñu stade Léopold Sédar Senghor bi nga xamante ni dañ ciy fo jamono yooyu ñuy fo ñoom ñuy liggéey ngir tabax seen économie looloo tax ay nit suñu jugee suñu réew di jéem a rey seen bopp jàpp ne foofu bu ñu fa demee am nañ espoir ngir li nga xamante ni mënuñu ko am ci seen réew mooy liggéey bu baax am nañu yaakaar ne bu ñu fa demee danañ ko am beneen bi ginnaaw bi ñuy to tollaatee foofu tamit siin di gën a avancé bi ñëwaatee dañoo may arène boo xamante ni bi ñu jëlee suñu géej gi ba doyal dañoo ñëw may ñu arène boo xamante ni dañu fay bëree tàkkusaan gu jot ay ponkal taxaw fa di dóorante ñun ñu yaakaar ne loolu mooy développé réew te fekk na loolu développé wut réew mais li nga xamante ni moom moom mooy secteur yi nga xamante ni ñëpp xam nañ ni réew boo xamante ni bu do développé la foofu la sukkandiku li ci ëpp foofu lañ sukkandiku ngir mën a développé mooy ci mbay mi mooy ci sàmm gi mooy ci napp gi yow li nga xamante ni amoon nga ko ci ay ressources halieutiques yëpp saax jox nga ko ay réew yu nekk ci bitim réew ñu saax saaxee ressources halieutiques yooyu le moo tax ñi nga xamante ni dañoo nekkoon ndax tamit napp gi du ñuy dem géej kese ñoom ñoo ci gis seen bopp waaye ñi nga xam état bu Sénégal daf ci gis boppam ndax état bu Sénégal dañuy wax ne heure boo jëndee lu ma dix mille ci gasoil cinq mille cinq cent yi lépp ay taxes la yoo xamante ni état bi moom moo ko teg ci kawam looloo tax ñu naan essence lan moo tax muy jugee ci port bu dakaar ñu def ko ci ay camion mu daw mille trois cent kilomètres ñu yóbbu ko Bamako mu gën a yombe Bamako ci dakaar taxi yi ñu teg yi suñu gouvernement bi di teg la ci fële gouvernement bi nekk Bamako dul teg kon napp gi bu doxee état bi dana ci gis boppam ndax li transporter jën yi ngir mu jugee ci région ngir dem ci région raison ay oto ñoo koy def gasoil la ñuy jëfandikoo wala essence luñ ci jëfandikoo lu muy gën a bëri état bu Sénégal da ci gën a gis boppam waaye ñiy géej mooy mool yi dugg ci biir gaal dañ ciy gis seen bopp ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy jënd ci ñoom di ko jaaywaat ñi nga xamante ni mën nañ ay grossiste dañ ciy gis seen bopp ñi ñu koy jaay ñu koy détaillé tamit dañu ci gis seen bopp ñeneen ak ñeneen dañu ci gis seen bopp kon loolu chaîne la loolu boo saax-saaxee géej gi jox ko ay bato yoo xamante ni dañoo fekk baax fële ca bitim réew ñu ñëw def lu leen neex ci géeju senegal ba suñu ñi nga xamante ni mooy suñu nappkat yi mënatuñoo am géej euh, jën jën yu baax ci géej gi loolu économie bu réew bi daf koy yëg te ñooñu tamit bu dee dañu yoroon seen ay gaal jàpp ni dem ci géej gi napp ñëw ci la ñuy mën a amee xaalis nga def lu la neex ci géej gi léegi ñoom dañuy mujj soppali ay passeur di ñëw di encaisser nit ay xale wala boog suñu ay morom wala ñu ñu mag sax ay cinq cent mille francs wala deux cent mille francs ngir ni mën nañ leen a yóbbu Espagne da ngay gis koo xamante ni bu gisee gaal buy dem day jubilé wala bu ñu jàpp bu ñu demee ba jub îles Canaries sax dañuy jubilé te comprendre ñu ni ña koy def ñu si ëpp comprendre ni îles Canaries boo fa duggee bu neexut Espagne mënoo génn ci île ba ndax ab île yaakaar naa ku ko dégg rek war nga comprendre bateau moo la fay génne wala avion moom moo la fay génne kon foofu du du foo xamante ni amul géej amul dara da ngay jékki-jékki boo fa wàccee rek day daw dugg dugg dugg biir Espagne boo bëggee dem Barcelone dem fa boo bëggee dem Bilbao dem fa boo bëggee dem Madrid dem fa demewul noonu buñ bëggul nga génn ci île ba doo fa buñ bëggul nga génn ci île ba doo génn foofu la ci île Canaries boobu nga xamante ni fa ngay dugg moo tax ñu bëri danañ dem effectivement buñ àggee ca Îles Canaries dañuy woo seen i njaboot di wax nañ leen ñaanal dugg nañ Îles Canaries mais ñu ci bëri dañ leen di dugal ci ay camp buñ leen dugalee ci camp quelque jours wala quelque mois dañ leen di rapatrier waat noonu la fay demee li ci ëpp kon boog ñu bëri jàpp nañ buñ duggee Îles Canaries rek dugg nañ Espagne affaire yi baax na dañuy liggéey am xaalis yónnee seen yónnee seen njaboot xëy na loolu lañ bëggoon mais mais mais du demee noonu lépp daal li ko waral du dara loolu suñu gouvernement yi bi ñu bi bi bi nga xamante ne nee nañ suñu réew yi jot nañ seen souveraineté internationale liggéeyu ngir lu mën a jox ay ndaw xëy nee nañ at bu jot fii ci suñu suñu réew yi mooy Sénégal trois cent mille jeunes ñoo dugg ci marché de l'emploi bi mais ñaata nit la ci état bu Sénégal di jox xëy ñoom ñoo ko wax ministre ministre travail moom moo ko wax nee na 9000 lañ ci jox xëy cent mil ñoom ñooy dugg chaque année 9000 képp la ci état bu Sénégal di jox xëy ñi ci des ñëpp ay chômeur lañ moo tax rapport bi nga xamante ni moom la agence nationale de la statistique de la démographie mujjee génne ci mille vingt 2022 bi mu ni Sénégal li fi nekk instant bi dëkk boo xamante ni 6 millions. six million presque six millions chômeurs am na fi mooy cinq millions cinq cent ci ay chômeurs am na fi dëkk boo xamante ni seize million jàpp dix-sept millions d'habitants la ñun la am na six millions de chômeurs xam nga ni loolu kawe na lool ndax chômeur buñ ko waxee mooy koo xamante ni jàng na am na ay diplômes yi mu war a am yépp ba toll na ci âge liggéey te mënul liggéey kooku mooy chômeur bokkut ak jeunes yi nga xam ñoo toll ci ah, dañoo am âge jàng wala ñi nga xamante ni ay boo xamante ni na am 17 millions d'habitants wala 16 ñu naan la am nga 6 millions de chômeurs loolu xam na ne lu ko gën a garaaw amul kon lii xew démb gis naa ministre affaire étrangères di weddi ni loolu amul naan am na ñu fi déparé woon deux cent soixante neuf xam deux cent soixante huit personnes yoo xamante ni euh, bi ñu egsee ca Maroc jàpp nañ leen foofu ba seen consul bi nga xamante ni moo nekk ci Maroc ci dëkk bu ñuy wax Dakhla euh, informé na informé woon na leen ci loolu mais tey jii garde code yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk Espagne gën nañoo préciser ni ni loolu effectivement lu am la am nañu fi déparé mu nekkoon ñetti euh, gaal yoo xamante ni déparé woon nañ foofu la ca Cap Skirring jëm si foofu la ba garde corps yi sauvé nañ ci quatre-vingt-six personnes nga xamante ni ñi ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci des muy deux cent deux cent quatorze personnes yi ñu ngi leen di wër xam nga ñoo xamante ni dañ naan deux semaines ñu ngi ci géej gi xam nga ni ñooñu moom Euh, dañuy ñaan yàlla rek ñu feeñ ak jàmm mais nag euh, kenn xalaatu bu ñu leen di gis dañ leen leen gisaale ak bakkan kon état bu Sénégal li muy def dafa war a assumer ay responsabilité ci échec bu ma échec ngir euh, mën a jox ndaw ñi xëy waaye lu xew rek nga sukkandiku di ko ji ñeneen naan lii manipulation la wala nang manipulation wala nangam la noonu lañ def ci manifestation yi nga xam ne amoon na fi ci premier juin bi ñuy wax naan ñi ay force occulte lañ ñi ay force obscure lañ ñi Sénégal Sénégal xamul li Sénégal xamul li France bi nga xamante ni xew na fa dañoo assumer seen ay responsabilité Macron dak dakkal ndaje bi mu doon amal ci Bruxelles ñëw ca Paris daal di amal benn ñu samp benn cellule de crise moom mu nekk ci premier ministre am di Elisabeth Borne nekk ci euh, ministre de l'intérieur Gérald Darmanin nekk ci ak ñenn ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ñu jàkkaarloo ak presse bi waxtaan bu ñuy wax dañuy wax ni ay casseur wala ay émeutier ñoom ñoo ko doon def ñooñu nangu nañ ay français ñoom ñoo ko doon def waaye fii ci suñu réew du ñu nag dañuy dañuy daw seen i responsabilité suñu gouvernement échec gi ñu échec moo tax chaque jour dañuy jéema daw seen responsabilité lii nag ñëpp dañoo jàppoon ni mi dakk na mais mosul arrêté mais nag heure bu ci problème bu mag amee waaye nag lay xew am na loo xamante ni mënuñu ko reprosé pays yi nga xamante ni ñoom la ñu jëm ndax jamono bu nekk Union européenne day génne xaalis bu bari loolu ci lañ tëjee woon Boubacar Sèye bi bu fi waxee loolu xaalis bi Union européenne di jox suñu gouvernement yi ngir ñu wutal ndaw ñi xëy ngir ñu mën leen a téye fii xaalis boobu la ñuy def ci lu leen neex di ko politiquer wala boog buñ dee jox ndaw ñi xëy duñ jox ndaw ñëpp xëy dañ koy def mbiru politique. ñu jël affaire bi di ko def mbiru APR ak mbiru benn Bokk Yaakaar au lieu ñu yemale ci citoyen sénégalais yëpp xam ne alal ji xaalis la boo xamante ni sénégalais yëpp ñoo ci bokk yam waaye du ñu ko def lépp dañu koy jël def ko affaire politique looloo tax chaque jour immigration clandestine wala immigration irrégulière bi nga xamante ni ñëpp jàppoon nañ ni arrêté na jamono ji nekk day day gën a jëm kanam te lii nag fii ak saafaruñ jéem a jox ndaw ñi xëy ñu jéem a soppi suñu doxalin ci ni ñuy doxalee depuis indépendance ba léegi ñu xam ñun lan mooy suñu ay priorité bis bu ñu ko deful dañuy continuer muy gën a métti ci ñun ndaw ñi di gën a jël gaal yi di dem di dee ci désert bi wala ñuy dem fële ca Libi ñu leen fay téye di leen jàpp di leen def ay jaam ak di leen wooloo seen ay famille ngir ñu sàkku ci ñoom ñu jox leen xaalis ngir ñu mën leen libérer bu ñu ko deful ñu téye leen foofu di leen jëfandikoo di leen def lu leen neex loolu nag jàpp naa ni lu lu ñu waral regle la ginnaaw maa ngi wax ci loolu sax ma profité waale waxaale ji yaakaar naa Sénégal ñu bëri defoon nañ jëli seen doomu réew fële ca Tunisie ginnaaw ci weeru janvier bi président bi wala février bi président bi réewum Tunisie di Kais Saied yëkkati woon ay kàddu boot di Conté jëmale ko ci Afrique euh, immigrants yi nga xamante ni ñoom ñoo jógee ci Afrique subsaharienne di dem foofu la ci Tunisie mu ni woon lafa xew ci mbirum banditisme ñoom ñoo ko fa indi ba pare dañ leen bëgg soppi dañoo bëgg a soppi seen xeet wi mu mu doonoon ay kàddu yu ñaaw waaye nag ginnaaw ba mu waxee lool ñi nga xamante ni ay raciste lañ te nekk ci population bu daf leen gën a doole benn dëkk boo xamante ni dàqee nañ fi immigrant yi fa nekkoon vraiment muy lu ñaaw loo xamante ni communauté internationale bi yëpp war nañ ci di wax ndax loolu warul am fenn ci àdduna bi nit ñi dañu am droit di di doxi ndax nag tunisiens yi di dañuy dem fépp ci àdduna bi kon nit ku bëgg dem Tunisie da nga war a bëgg a dem Tunisie boo fa dee jaar jàll nga jaar fa jàll bu dee da fa bëgg a toog liggéey nga toog fa liggéey kon comme ñoom ni ñu koy defee ci di di dem fépp di fa immigré yi ci réew yi nga xamante ni moom mooy réew yi nga xam moom moo nekk ci monde bi yëpp li xamante ni bëgg nañ ci wax mooy diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall est-ce que dialogue mën na ci am man dama naan dialogue mën na ci am waaye dafay am ay conditions yoo xamante ni moom mooy waral dialogue am diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall ndax nag li tax ñu wax loolu mooy Nelson Mandela tëj nañ ko ci kaso vingt sept ans six mois six jours ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite woon régime ségrégationnel boobu nga xamante ni moo amoon ci Afrique du Sud Afrique du Sud ab vingt exemple daraan jot ñu ne décrété nañ couvre-feu couvre-feu ñëpp ñëpp ñëpp la war a euh, engagé ñu ni couvre-feu bi noir yi kese ñoom ñoo ko tax a jóg bu vingt heures jotee noir yi yëpp dañuy dem tëddi école yi noir yi amuñu droit jàngee ci place publique yi noir yi amuñu droit toog ci loolu moo amoon Afrique du Sud loolu la Nelson Mandela doon xeex ak ñi mu àndaloon ci partie bii di ANC loolu moo jural Nelson Mandela ay ati kaso yoo xamante ni tëdd na ko muy ñaar fukki at ak juróom-ñaar ak juróom-ñaari weer ak juróom-benn fan yoo xamante ni Nelson Mandela tëdd na ko ci kaso bi waaye ginnaaw bi mu génnee régime ségrégationnel boobu nagoo dakkal jëf yooyu ñu doon amal mooy di décréter couvre-feu ngir noir yi di leen aay ñu jàng ci yenn école yi di leen aaye ñu dem ci yenn transport euh, yenn place publique di leen ñu jël yenn transport public yi ñu nangu ko dakkal Nelson Mandela dafa toog ak njiitu réew bi nga xamante ni moom moo nekkoon foofu la ci Afrique du Sud waaye kooku dafa poser ay conditions conditions yi mu posé nag moom mooy li Nelson Mandela doon xeex kooku nangu ko teg ci suuf moo tax Nelson Mandela nangu toog ak moom leneen loo xamante ni am na ci réew yoo xamante ni yu bëri la li am fii ci suñu li amoon fii ci suñu réew man du ko jël exemple ci jamono Abdou Abdoulaye Wade ak Abdou juuf ndax jamono jooju xëy na média dafa développé wut woon ni mu développé nii rek mais li Idriss Seck def nii bu yàggul loolu Abdoulaye Wade doon def rek xëy na média dafa développé wul woon noonu conscience yi éveil des consciences amul woon loolu moo am kon jàpp naa ne bis bu Macky Sall euh, tegee condition libérer détenus politique yi nga xamante ni moom la jàpp arrêté dossier wu caaxaan yi nga xamante ni mi ngi am jamono ji ñu toll pour man Ousmane Sonko man na toog ak Macky Sall li nga xamante ni sénégalais yu bëri ñu ngi koy sàkku ñoom ñaar ñu toog waaye nag mënoo di toog bëgg toog ak nit ngir ngeen waxtaan jamono jooju ñi ko gën jege ci politique yaa ngi leen jàpp dugal leen ci kaso bi jamono jooju yaa ngi bëgg a waxtaan ak nit yaa ngi jël ay këram wërale ko ak ay takk der ci lu la yoon mayul jamono jooju yaa ngi jël ay dossier muy baagante ci kanamu yoon te ci dossier yi wóor na leen ni amul benn fondement kon yooyu bu ñu ko teggee ndaje Ousmane Sonko ak Macky mën na am gis naa ñi nga xamante ni naan modab li mu wax waru ko wax modab dañu leeral li ñu wax lii bu ko Macky Sall defee war na mën a wax ak Ousmane Sonko loolu nag mooy lu wér modab wax na ko Abass wax na ko te ñun loolu mooy suñu position mais nag dafa am loo xamante ni Ousmane Sonko wax na ko kenn du ko woo ci négociation jël paakate ko ci putam jël paakate ko ci putam mooy lan di ko jéem a chantage naan ko jàpp naa ñi nga xamante ni ñoo la gën a jege ci Pastef les patriotes ba pare da ngay ñëw waxtaan ak man loolu xam nga ni du du loo xamante ni lu sincérité moo mooy lal loolu le kon boog condition bis bu ñu ko posé li Nelson Mandela defoon bi ñu ko posé lee ay conditions mu nangu toog ak ñoom ba ni muy jotee ci pouvoir bi pour man loolu war na mën a nekk te Ousmane ko waxal na ko boppam ci interview bi nga xamante ni amal na ko ci France 24 que ni moom bu Sénégal soxla pare na ngir def ay sacrifice waaye nag moom kenn du ko chantage loolu moom jàpp naa ne lu leer naññi la lu leer naññi la ndax ay sénégalais am na ci ñoo xamante ni. te dañu far am na ñoo xam Sénégal yoo xam faruñ fenn jàpp nañ ni liy apaiser Sénégal mooy ñaar ñi nga xamante ni moo tax Macky Sall lim lim doon amal kenn waru ko mën a tuddee dialogue ñu réeroo ñoom ñooy def dialogue pour euh, trouver ay consensus mais ñi nga xamante ni réeroowu bu ñu nee dañuy def dialogue pour man li ñu doon def nañ ko tuddee neneen mais du dialogue kon kii Macky Sall amal ak réeroo te loolu moo waral li am Sénégal depuis mars 2021 ba léegi am fi kenn la réerool ci aw homme politique dëgg fii ci Sénégal moo jur tension bi nga xamante ni am na fi yépp mooy Ousmane Sonko la kooku tudd mooy leader bu Pastef les patriotes kon képp koo xamante ni moom la Macky Sall naan moom lay waxtaan ak ngeen apaiser climat sociopolitique bi jàpp na ni li mu war a def defagu ko kon boog lii mooy li nga xamante ni am na ci diggante Ousmane Sonko ak Macky bu dee na condition yi amul ba pare moom mu jàpp ne mën na waxtaan ak Ousmane Sonko loolu munul nekk loolu munul nekk ndax nag nit ku ne da nga koy nangul ñi nga xamante ni moom moom la ko yàlla bindee na nangul tempérament ba pare ñi nga xamante ni mooy mooy Pastef da nga leen nangul ñoom seen démarche seen démarche li nga xamante ni moom la def bi ñu sosoo ba léegi te moom moo leen di jig jamono ji ñu toll duñu ko bàyyi te loolu moo waral te sax bëgg naa wax bala maa wax ci dernier point bi ci lu lu ridicule li nga xamante ni gouvernement bi ñu ngi koy def mooy France vingt 24 amal ay interview ak leader bu Pastef ngay wëlbatiku di def ay communiqué naan dañoo décrédi dañuy décrédibiliser suñu police nationale dañu nañu xool baat yi ñuy jëfandikoo décrédibiliser nit ak rétablir la vérité ñaar ñaar la yoo xamante ni bokkul nit wax ni kii taxaw yére bi mu sol lu rouge la fekk na kooku lu blanc la sol nga ne ko li nga wax amul kii sol lu rouge lu blanc la sol loolu du décrédibiliser nit mais rétablir la vérité la kon France 24 dafa rétablir la vérité tv cinq moom noonu la ko defee yeneen média noonu lañ ko defee mais loolu ñun bu ñu amoon ay média ñoom noonu lañ koy defee bu ñu amoon ay ay média yu wér ñoom ñooy def liggéey boobu avant France 24 di ko def avant RFI di ko def ndax ñëpp teg nañ seen bët ay nervi yoo xamante ni dañuy ànd ak police du ma ne gendarmerie mais police la ñuy àndal loolu ñëpp teg nañ ci bët loolu am na événement mars 2021 am na ci événement yi nga xamante ni moom moo am ci juin juin bi passé pour man dañu war a def ndànk Macky Sall nag lii muy def nii ndax interview bi mu amal vendredi ak euh, journal Le Monde mi ngi xamal ne c'est inélégant Macky Sall euh, di yónnee ab émissaire principal opposant mais Macky dafa recevoir ki nga xam ñi nga xamante ni France heure bu heure bu deuxième tour amee nit nit ñi lu ñu contre contre contre contre président sortant bi wala boog beneen candidat bi dem ak candidat bu extrême droite bi dem ak moom deuxième tour ñépp dañuy booloo dem ànd ak candidat bu extrême droite bi élection présidentielle yi nga xamante ni amoon na France ci avril deux ñaari candidat yu extrême droite lañu amoon muy Éric Zemmour ak Marine Le Pen bi ñu demee deuxième tour kan Jean-Luc moo ci neutre mais Jean-Luc Mélenchon sax ni mu waxee du du neutralité mais dafa joxewul consigne joxewul consigne pour ñu voter Macron mais ni mu waxee mooy discours ba def après mooy ci ngoonu première tour bi dafa chargé Marine Le Pen ci discours am boobu loolu mooy voté leen Marine Le Pen euh, mooy voté leen Emmanuel Macron ci deuxième tour bi ay militants mais waxu ko directement mais loolu la doon wax indirectement mais candidat bu dul Éric Zemmour mais douze can onze can onze yi ci des yëpp Marine Macron lañ jàppale loolu moo amoon 2002 bi Jacques Chirac demee woon deuxième tour ak papay Marine Le Pen muy Jean-Marie Le Pen bi ñu demee deuxième tour ñëpp dañu jàpp ne extrême droite moom heure bu demee deuxième tour képp képp ku ne loo jàppoo rek da nga ko war bàyyi ngir dem sutenir ndax jàpp nañ ni ñi waruñoo ñëw ci pouvoir bi traumatisme boobu nag parti extrême droite yi ñu ngi ko tegee woon Europe jamono ji année trente yi bi Hitler di jiite foofu la ci Allemagne ndax Hitler parti extrême droite la yoroon jamono yi ñu toll ci Europe lañ gisaat extrême droite di ñëwaat ndànk-ndànk di monter te loolu sax fépp la am ci àdduna bi ndax benn changement moom mooy am leader yi nga xamante ni ñoom ñaa daan gouverner parti classique yi dañoo tàmbalee dellu ginnaaw bu baax a baax ñu am yeneen parti yu bees yeneen leader yu bees loolu moo am yàgg naa ko fa ci ay réew yu bëri mooy Donald Trump bi nga xamante ni euh, ñàkk na nguur gi ci atum 2020 bi ay sondage ñi ngi génn foofu ci Amérique di wax ni élection yi nga xamante ni moom la ñu war a dem 2024 buñ ci demee instant bi Donald Trump mi ngi ci diggante 55 pour cent ak 60 pour cent ay sonda ay sondage wane na ko te Donald Trump ñëpp ñoo xamante ni ku radical te ñu bëri sax ñu ngi changé yaakaar ne bu Donald Trump ñëwee lu bëri mën na soppiwaat ci politique u àdduna bi ni muy doxee ndax Donald Trump ñëpp xam na ci mandat bi nga xamante ne amoon na ko di gouverner mi ngi doon wax naan dafa bëgg génn ci kuréel googu nga xamante ni moom mooy OTAN mi ngi doon mi républicain tam dañuy faral di wax ni démocrate yi mooy ñoom Joe Biden ak ñi ñu àndal li ñuy def ci guerru Ukraine bi ci alal dafa bëri lool kon kooku ñëwaatam ci pouvoir mën naa sopp lu bëri ci politique bu àdduna bi ñëpp yéen a gis ni Bolsonaro ni ni mu doon gouverner Brésil ñëpp ku radical la Bolsonaro façon leader yooyu ñoom ñoo tàmbalee jël euh, ñoom ñoo tàmbalee ñëw ci pouvoir bi fépp ci àdduna bi looloo xew Hongrie ak Victor Orban loolu moo xew Italie ak Giorgia Meloni loolu moo am fu bëri ci àdduna bi kon politique gu àdduna bi jamono ji ñu toog moom mooy changé loolu nag Afrique mënu ci rëcc kon lii xew nii xew fële ca France Macron euh, Macky Sall ko wax naan li Macron def Macron réciprocité day am mooy boo ma defee nangam dama la koy def loolu mooy réciprocité Macky Sall daf ko def euh, Emmanuel Macron Emmanuel Macron def ko ko lan moo tax Macky daje na ak ay yoon depuis bi loolu xewee ba léegi ndax mari Le Pen mi ngi ko recevoir en janvier émissaire bi ñu yónnee Ousmane Sonko ñu ngi ko ko yónnee en mars lan moo tax Macky Sall daje yi fi dajee ak daje na ñaari yoon ak moom mooy sommet bi mu mujjee dem Paris avant boobu tamit daje na ak Macron fële ca Paris lan moo tax waxut loolu Macron. dafa dem ba xam ni léegi mënatul def troisième mandat troisième mandat bi mënatul nekk mu doog a yëkkati yooyu le kàddu loolu nag looloo waral après rek communiqué boobu topp ci ñu wax ni France 24 day amal li nga xamante ni moom mooy propagande la mais li France 24 wax ni Birame Souleye Diop dañ ko jàpp ngir daf doon euh, wax ci discours loolu loolu nit dañ naan les son sont sacrés mais le commentaire et libre journaliste mën naa commenter gisee ko noonu ndax nag Yewwi Askan Wi conférence de presse bi lan moo ko taxoon jóg dañu amaloon conférence de presse bi ngir décision bi mag Sall jël ñoom ñu joxe ci seen xalaat dañ ko doon commenter loolu ci la Birame Souleye Diop di expliqué di expliqué di expliquer ba dugg ci loolu nga xamante ni dugg na ci te ñu wax fi keroog ni du kàddu yoo xamante ni jàpp nañ ne war nañ ko yëkkati kon journaliste bu defee bu ko commentaire noonu loolu mën nga ko nangul jàll ci leneen kon vraiment ak ak ak ak RFI bu dee nag li nga xamante ni am na mooy interview Ousmane Sonko bu àggee ci un million six cent mille vues ci euh, ci quatre jours bu dee loolu mooy naqari état bu Sénégal vraiment loolu nag du RFI mais nit kooku fu mu toll la ci dayo ndax loolu amul benn homme politique boo xamante ni mas nga ko def fii ci Afrique benn homme politique boo xamante ni am nga interview moins de cinq jours yi nga àgg ci un million six cent mille vues kenn mosu ko am loolu nag yaakaar naa homme politique boobu popularité am du lu ñu nattablee di dafa populaire loolu Sénégalais yëpp xam nañ ko kon kooku vraiment du ku ñuy tere muy dem ci élection li nga xamante ni bëgg naañ ci daane mooy choix bu Macky Sall ci biir alliance pour la république ñu bëri wala boo sax ci coalition benn bokk yaakaar wala ci seen parti boobu ñu tuddee alliance pour la république ñi ngi wax alliés yi keroog recevoir na leen muy waa Benno Bokk Yaakaar ñu bëri ñoom ñu jox nañ la carte blanche koo choisir d'accord nañ ci ak yow bu dee sax ay rébellion am na ci biir ndax nag AFP bu Moustapha bu ñu fàttalikoo ministre euh, ministre du euh, commerce bi fi nekkoon mooy Aliou Sarr te mu ci Moustapha Niass jiite woon cadre yu AFP moom ñëpp xam nañu. yóbbu na lenn ci AFP ginnaaw ba fa Malick Gakou génnee taxawal grand parti Alioune Sarr mi nga xamante ni bu yàggul dong mi ngi woon ak Moustapha Niass déclaré na candidature ba ñu bëri am na ñoo xam ne du ma ne ñu bëri waaye am na ñu ko topp ci AFP euh, ci parti socialiste yaa ngi gis maire bu euh, Grand Dakar Jean-Baptiste Diouf la tudd bu ma juumul parti socialiste la bokk nee na moom loolu ñooñu wax ni jox nañ Macky Sall carte blanche moom engagé wu ko day nekk candidat ci élection présidentielle yi ñu jëm waaye nag guerre bi dëgg dëgg dëgg mi ngi nekk ci biir APR yaa ngi gis ñu naan ADD 2024 Boun Dionne ñaan Boun Dionne 2024 ñi naan Antoine ñi naan euh, amadouba Ba 2024 ñi naan Aly Ngouille Ndiaye li wér mooy Aly Ngouille Ndiaye am na ay kilifa diine yoo xamante ni nangul nañ ko candidature am ba sax ñëpp yéen a ngi gis ni ndaje mi Macky amaloon ak maire yi nga xamante ni ñoo bokk ak président conseil départemental yi bokk APR euh, yi bokk APR ndaje mi mu leen recevoir ñu naan ko d'accord nañ ci troisième mandat bi demal wuti ko Aly Ngouille Ndiaye teewu fa woon ndax boobu Aly Ngouille Ndiaye mi ngi doon waajal benn déclaration jàppoon nañ ne bu makki Sall ne damay dem troisième mandat day tàqalew ko ak moom déclarer candidature am te yaakaar naa ni keroog mooy bi Macky Sall waxee ne du laaj ñetteelu mandat te sañ-sañ te ni mu waxee ca yu ko TFM jëlee ni mu waxee rek ñëpp xam nañ ni kii dafa bëgg a dem Amadou Ba yaakaar naa nekkatul secrétaire poli polichinelle ñu bëri xam nañu ko ADD tamit instant jamono ji ñu wax ak yow muy Abdoulaye Daouda Diallo mi ngi def tournée ca kilifa diine yoo xamante ni ñoo nekk ca Fuuta ñu ñaanal ko ba ay mili ay militants yoo xamante ni dañoo fekk euh, baax ca euh, euh, tund woowule muy Fuuta ñu nekkoon ca ci diaspora bi jamono ji ñu ngi ñibbisi di soutenir candidature bu Abdoulaye Daouda Diallo te ñi ngi sax ñoom ñi ngi tàllal loxo homme d'affaires bii di Arona ja yi nga xamante ni yàgg na jàppale Macky Sall ngir Arona ja jàppale Abdoulaye Daouda Diallo waaye ginnaaw bi Macky Sall recevoir waa APR dafa wax ni dana tànn koo xamante ni xëy na jikko yim yor lay yor day noppi du bëri wax ba pare nee na dina président ci réseaux sociaux yi ndaw ñi danañ ko bëgg li Macky Sall li bëgg mooy tànn benn marionnette boo xamante ni dana ko mën a manipuler bu jugee ci nguur gi Macky Sall nee na bu jugee ci nguur gi dafa bëgg a toog Sénégal lu mag Sall lu may def Sénégal lan lay def Sénégal après bu jugee ci nguur gi mais dafa bëgg a di nekk ci espace politique bi di am influence yi nga xamante ni noonu la politique gu Sénégal bi di doxee loolu la bëgg loolu nag lenn moo koy mën a may mu am ab benn marionnette boo xamante ni moom la fiy teg léegi nag man jàpp ma ni Amadou Ba lay choisir jàpp ma ni Abdoulaye Daouda Diallo même bu Abdoulaye euh, Amadou Ba Macky Sall du homme de confiance su Macky Sall loolu yaakaar naa ñëpp xam nañu ko Amadou Ba bu yàgg la Macky Sall jàpp ni ma kii day liggéeyal boppam Abdoulaye Daouda Diallo même bu dee Macky Sall wóolu na ko dafa am handicap ndax Sénégal fii dafa am ay réalité boo bëggee dem di laaye baatu askan wi force làkk bi ñu gën a wax nga man ko wax ci ay kàllaama yu leer loolu dalul daaw Daouda Diallo te dafa am loo xam ne ba fa Macky Sall toogee ba léegi dañ koy wax muy Netogo Bando boo ko choisir ñëpp dañuy wax Netogo Bando te daa Abdoulaye Daouda jàll dafa am lu fi jiitu woon ba Aliou Dembourou Sow taxaw fii di wax naan Macky Sall day am troisième euh, bu ko amul lañuy euh, bu ko amee ñu ko bañ dañuy génne jaas yi bu Macky Sall demee ba fi jóge sax Abdoulaye Daouda Diallo lañ fi teg loolu la Aliou Dembourou Sow waxoon. kon kooku jàpp naa ne boo ko choisir pour opposition bi mën a campagne contre moom day yomb beneen bi te Abdoulaye Daouda Diallo sax du nit ku bëri wax jàpp ma ne personnalité nit la ku yomb manipuler loolu laa jàpp man beneen bi ci topp mooy Aly Ngouille Ndiaye Aly Ngouille Ndiaye man nañ ni am na base politique jolo am na ay kilifa diine yoo xamante ni xëy na am na ak ñoom relation ndax ministre de l'intérieur boo ko nekkee nekk na ko ay yàgg daanaka xew-xew diine yëpp président de la république yow la ci yabal xëy na foofu am na ko mais Aliou ngu Ndiaye amul ndëgër laay ci biir APR ak Benno Bokk Yaakaar bu dëgër boo xamante war na nekk candidat boo xamante ni bu dee choisir uñ ko te góoma ni dinañ ko choisir moo tax choix wu Macky Sall man man bokk li ma analyser ci kàddu ay makisal ak ñi nga xamante ni li mu bëgg danañ ko ko mën a defal mooy ñoo xamante ni même buñ fi toogoon deux mille vingt quatre deux mille vingt neuf moom bu bëggee dellu si waat deux mille vingt neuf xëy na mën na nekk ndax nag pouvoir koo ko jox mën a toog ko contrôler Senghor bi mu ko joxee Abdou Diouf Abdou Diouf li mu njëkk a def mooy jéem a effacer Senghor ci histoire loolu nit ñi dañ ko doon nettali lu bari Abdou Diouf Senghor bi mu ko koy jox jàppoon na ne Abdou mi benn marionnette la bu neex a manipuler mais bi mu ko ko joxee Abdou li mu njëkk a def mooy jéem a effacer Senghor ci histoire politique bu Sénégal wala bo leneen li nga xamante ni moom mooy topp sa keroog joxe naa ko fii exemple mooy Abdoul Aziz mi ci Mauritanie yow koo àndal mu nekk sa xarit mën naa am sax sa ay doom yoo xam moom moo leen tudd ngay taxawal parti politique ngeen ànd jot nguur nga def ko ministre de l'intérieur mu nekk ministre de l'intérieur nga préparé ko mu nekk sa dofee jàppale ko mu jot nguur gi mu nekk ministre de l'intérieur nga jot pouvoir bi bëgg a dellu siwaat ñoom ñaar loolu moo leen jotale Abdou Aziz ak Gazouane Aziz dafa bëggoon a dellu siwaat Gazouane bañ loolu moo waral seen jafe-jafe ba tey jii Gazouane yi ngi ko def résidence surveillée Macky Sall nag jàpp naa ne li ay nattaangoom yi fi nekkoon euh, réussir moom war na ko mën a réussir lan la nattaangoom yooyu réussir Buhari dafa préparé bulletin ubbu bu la amee Tinubu kooku gañe ay élect ñu dem mu ànd moom campagne kooku gañe Mohamed Oussouf dafa préparé Mohamed Bazoum préparé ko ànd ak moom campagne kooku gañe mais foofu pouvoir yooyu doole yi ñuy am fii Sénégal doole jooju pouvoir bi amu ko ndax ñooñu seeni escore yu président bi di am fii Sénégal amu ko Macky Sall ni mu wàccee ci élection yi mën nga ni candidat bi Macky Sall di choisir bu amee consensus bu dee am na consensus ci digg bu amee consensus ci APR ak Benno Bokk Yaakaar man nga de candidat boo premier tour mën naa am trente pour cent trente cinq pour cent ndax Abdou Diouf bi muy génn quarante euh, quarante euh, côté quarante quarante pour cent quarante et pour cent la amoon Abdoulaye Wade premier tour trente cinq pour cent la amoon kii génn force dina am escore boo xamante ni dina xaw a kawe mais du mën a jàll premier tour léegi ñi nga xamante ni defa desoon nag Abdoulaye Wade bi mu amee pour cent premier tour deuxième tour ba loolu la amaat Macky Sall bi nga xam moo amoon vingt cinq pour cent moom moo am soixante cinq pour cent ñi wotee leen yeneen opposants yëpp dañu voteel Macky Sall kon gis naa sax ñenn di théoriser di wax naan nañoo Macky Sall dafa am ay candidats yu bari après ñu retrouver wu deuxième tour bu ñu retrouver deuxième tour ñu yàkkal leen waaye mais da ngay wax ni yow man opposition la ñu voteel la jàpp nga ni ki voteel moom boo demee choisir candidat bu parti au pouvoir deuxième tour bi sénégalais boobu moom dina topp ci loolu Djibo bi mu ko defee en 2000 xam nga Abdou Diouf bu amee 41 pour cent Djibo Ka am 11 pour cent normalement bu dee Djibo Ka daf ko daf ko rejoindre ñu dem normalement Abdou Diouf war na am pour cent mais Abdou Diouf score bi mu amoon la amoon ñu voté loon Djibo Ka Abdoulaye Wade lay voté ci deuxième tour bi kon sénégalais vraiment. duñu ay mala yoo xamante ni vraiment dañ leen di jëlee fii point A yóbbu point B ci noonu rek loolu dafa yomb kon man suwaawu Macky Sall ni ma ko gisee jàpp naa ne du génne ministre de l' intérieur ak l'ancien premier mi euh, l' actuel ministre de l' intérieur mooy Antoine Diome ak wala boog l'ancien premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne kook moom yaakaar naa ni ñëpp xam nañ ko ndax Thierno Alassane Sall wax na ko ci livre am bi nee na taxawee ni ko. Euh, Macky Sall nee na nga signé nee na mu ni ko du ma signé ndax du intérêt Sénégal ma euh, man mu ni ko dangaa wala mel ni bouton mu ni ko man du ma du ma bouton mu ni ko man duwul bouton la yaakaar naa Mohamed Boun Abdallah Dionne ñëpp gis nañu ko kooku dafa jàppe boppam taalibe Macky Sall Antoine Diome tamit taxawaay boobu la am dafa jàppee boppam taalibe Macky Sall ba day jëf loo xamante ni xëy na Macky Sall sant ko ko waaye da koy def ngir bëgg ko neexal ndax jàpp na ne post bi mu yor nii moom daf ko jomb wur woon a mën a nekk ministre de l'intérieur moom dafa waroon a nekk foofu foofu la ca procureur am boobu nekk fa di chargé ñu def la ministre de l'intérieur jàpp na ne daraja jooju wur ko woon a mën a am moo tax muy àgg ci yoo xamante ni ba Aly Ngouille Ndiaye jàpp nañu jomboon na ko def ak yeneen ministre de l'intérieur Abdoulaye Daouda Diallo da ko def ministre de l'intérieur Mbaye Ndiaye ko def ministre de l'intérieur waaye jàppoon jàpp lii ay Antoine Diome def ci ay njombe ñooñu daawuñ ko def ndax ñooñu am na lu ñu doon seet ak loo xamante ni moom lañ doon jomb ci jamono ji nga xamante ne yoroon nañ euh, ministère boobu pour man li Macky Sall soxla mooy ku mu maanaam manipuler ba bu bëggee dellu si waat deux mille dix deux mille vingt neuf mu mën ko am ginnaaw bi ñu bi bi ñu jàppee ne ñoom mën nañu gagné ñaar ñi nga xamante ni jàpp naa ne war na leen mën a manipuler comme ni mu ko soxla ñu jàpp ne li Poutine defoon ak Medvedev moom war na ko mën a def fii Sénégal mooy Antoine Diome ak kii di ancien premier ministre mu Mahammed Boun Abdallah Dionne kon boog. nee dina joxe suwaaw fii ak euh, njeexitalu weekend bi nit ñi ñu ngi koy xaar te jàpp naa ne lépp lu ci mën a am amul benn choix boo xamante ni mën na def unanimité ci APR amul benn choix bu mën a def unanimité ci biir boo ko Yaakaar loolu Macky Sall vraiment contrôlé lu dara leen la ko nit ñi doon ragalee mooy décret yi mais décret yi képp kum dàq tamit da ngay xam ne sept mois ci des loolu nguur goo xam fu muy yem loolu neex naa muñ loo xamante ni xamoo fu muy yem loolu moo naqari muñ Macky Sall daf doon wax naan bu ko choisiroon 2019 nit ñi duñ liggéey jamono boobu la nit ñi di liggéey ndax boobaa nit ñi dañ ci xam ne yow am nga 5 ans 5 ans yooyu man nga leen a nommer ci ay poste de responsabilité mën nga leen a investir ci ay liste waaye boo xamante ni 7 mois moo la dese foofu koy vraiment dootul contrôler ti kenn looloo tax euh, discours bi. Souleymane Ndéné Ndiaye def keroog mu def ko looloo tax discours bi nga xamante ni yéen responsable Benno Bokk Yaakaar ñu ngi koy def ak yéen eh, discours yoo xamante ni nga xam ne ñu bokk ci APR ñemewuñ ko mois ci ginnaaw ji ñu toll ñu ngi koy def ndax xam nañ lu ñuy ragalee Macky Sall amatu fi sept mois donc moo ci des loolu bokk tool tay jii loolu lañ bëggoon waxtaan ak yéen ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jox rendez-vous ba beneen yoon